di leen di gërëm ci seen teewaay euh, yéen taskatu xibaar yi di leen di masaw yéen itam taskatu xibaar yi ndaxte coono bi nga xam ne moo tax tey ñu woote yéen am ngeen si wàll yoonu perte la ñu wax chemin de la libération ñu ngi sàkku ñu libérer sans condition et dans les meilleurs délais Abdou Khadre Sakho bu Sénégal moo tax réew mi ku foog ne lii di am mbokk Kaba rek wala mbokk sëñ Baara Ndiaye rek wala mbokk Pape Abdoulaye Touré dong wala mbokk Amidia dong wala mbokk may Maymouna Dieye dong wala mbokk Nit Dof dong wala mbokk Hannibal Jim dong wala mbokk Ousmane Sarr dong wala mbokk Ousmane euh, euh, Abdou Karim Gueye xurum xaax ak ñoom seen ndaxte ñu ngi toll ci junni ak juróom benn fukk ak ñaar ku jàpp ne ñooñu rek lay dal yaa ngi nax sa bopp du fi bàyyi kenn bu ñu toogee di seetaanante naan presse bi ci presse bi Pastef ci Pastef mouvement citoyen ci mouvement citoyen yi parti yi ci parti yi candidat yi ci candidat yi recalé yi ci recalé yi nappkat yi ci nappkat yi ma ne dañ ñuy damm benn par benn et à chacun son tour chez le coiffeur donc ñu ngi leen di masawu coono yéen waa presse bi ndax lii ñu teg Pape Alé du dëgg du yoon lii ñu teg abdu Khadre Sakho bu Sénégal du dëgg du yoon Pape abdu Khadre Sakho bu Sénégal nañ ko bàyyi mu ñibbi ginnaaw bi ñu nuyoo suñu mbokk taskatu xibaar yi di dalal bu baax a baax ci makkaanu askan wi fii ñi nga xam ne ñooy euh, mbokk euh, waaye ñi ñu euh, jàpp muy les prisonniers politiques te jàpp ñu leen ci dara lu dul bëgg des ci réew mi bëgg a ngoy ci réew mi bëgg a ngoy ci suñu alal ñu koy sàcc bëgg ci ngoy loolu dong bañ ki ñu yaakaar ne mooy président Ousmane Sonko bu président bu Pastef sondage yëpp wax ne mooy cinquième président du Sénégal jàpp ne kooku foog ñu faagaagal ko faagaagal partem faagaagal ay militant am faagaagal ay sympathisant am waaye faagaagal itam bépp presse bépp mouvement citoyen bépp chroniqueur bépp doomu aadama boo xam ne ah da wax dëgg rek ci Ousmane Sonko ak ci Pastef donc ñu ngi leen di dalal yéen euh, les familles de détenus fan yi passé dañoo lancé woon un appel ne junni ak ñaar fukki détenus jamono jooju loolu la woon junni ak ñaar fukki détenus mille vingt détenus mille vingt détenus ku ci nekk bu bu ci sa fukki mbokk ak xarit ak dëkkandoo ak am di jàmm ak mbokk daayira wala mbokk église ñëwee